yii di parlementaire yor tam baat baatu ndakaaru wala ngay imam war nga am tax waaye tamit ñu bàyyi suñu xel suñu doom yi ak suñu sët yi ndax réew mi bu tardé tardeelul ñi ñu arrivé ba pare mu ngi tardeel ñi nga xam ne ñu ngay dem parce que ñi fi politique yëpp tey parti politique boo jëm ñu fi nekk suñu ay moroom lañu mooy ñoo xam ne sans gagne sans perte la te fi mu nekk xale yi dañu bàyyi suñu xel boo seetee dëkk yi ñu wër yëpp. ah kenn ku nekk yaa ngi fexe sa njàng mi dem xoolal ren ji université Gaston Berger di mu mel e, e, njàng mi eggul gré yi dul jeex loolu nañ ci taxaw ah kon dama jàpp ne kenn ku nekk lii imaam wax ci wax ju rafet lii imaam wax ci wax ju teey ci dal ñëpp la war wante nekk kilifa bàyyi sa jabar sa kër bàyyi say doom jël rajo yi saaga nit ñi loolu du waxu kilifa te ñun lébu yi dañuy wax ne penc mu jàmm yendu kenn ku nekk da nga ci li nga xam libu ñu ne libu yi ñu penc mu jàmm yendu ku nekk da nga ci li nga xam ah men jël ci rajo yi maa gis biir dossier bi ma nekkee ministre ba ma nekkee chef de cabinet ba ma nekkee directeur mais kenn ku nekk boo xoon li nga xam am na ñoo xam ne seen say am na ñoo xam ne seen doom jippi ah parce que àddina mu bindoo noonu kon dama jàpp ne li ñu fi woote man itam maa ngi dugal sama baat di ñaan ñun ñëpp ñu jéggalante bàyyi ci xel ñaan yàlla mu def jàmm ci réew mi allahumma salli ala sayyidina Muhammad